ay tojitu verre ak i lakk-lakk yu jaxasoo ay sandarme yu takku lañu nemmeeku ci buntu mairie Kër Massar gannaaw saccage yi ñu fa amaloon biig ci guddi lii nag askan bi yeewoo ci diwaan bi daal di koy ñaawlu lool. mairie dafa di lu nga xam ne bii population bi ñoo ko moom du affaire nit du affaire parti du affaire lenn population bi ñëpp ñoo ko bokk kon li fi nekk suñu suñu suñu alal la. jaaduwul ku mer ak mer boo mënte am war nañu ko mën a waxtaanee mais jaadoowul ñu ñëw ci mairie bi di yàq li nga xam ni moom mooy alalu askan bi loolu ñu ngi koy doon dénoncé di ko ñaawlu rafetlu ko su fekkee loolu yëpp bu amee depuis ngoon gi yëpp vraiment xale yi di di yàq di def lu kenn xamul ba agsi ci mairie bi ba yàq ba génn te amul kenn ku leen mën a tere affaire boobu loolu ñaawlu nañu ko trop. Assane Fall moom mi nga xam ni moo jiite délégué quartier yu Kër Massar bi ñu sukkandikoo ci moom xamal nañu ni lu ni mel du lu bees. te lii c'est pas la première fois jëkk nañu ko fi tenté temps yële ci gannaaw man fii la ñu ma fekk keroog bëccëg yàllaa def sutura keroog intervention yi gaaw ba tax dégâts yi demewul noonu ak lu mën di xew ñu waxtaanee ko moo gën ñu ñëw di yàq alalu maire bi. bul mere nit ba tax nga nga ñëw di yàq loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk. délégué de quartier yu Kër saax àndandoo di sàkku ci nguur yokku takku der yi ci bërëb bi ngir ñu mën a am kaaraange. ñu ngi ñaan ci turu population bi yëpp nañ ñu dimbali renforcer ñu sécurité bi parce que li am fii biig yàllaa def sutura mais mënoon na jur leneen. ñun amuñu feneen fii lu ñu am fii la ñu am kon li nga xam ne mooy suñu suñu suñu suñu état civil bi ak suñu mairie bi noo ngi ñaan daal. nañu fexe daal ba sécuriser ñu ko ba nga xam képp ku am yene yak tamit doo ñëw di fi yàq ku am sa problème na ko réglé ji filen, leen mais bu ko réglé ci problème mu mairie bi. Kër Massar li ñu wax ne moo fi am ci effectif loolu dañuy rus sax di ko wax parce que euh, effectif bi dafa dafa tuuti wax nañ ñu ngi fi ñu ngi fi tabax commissariat commissariat boobu nañu fexe ba ba ba occupé ko ñu fexe indi fi ay éléments gendarmerie bi aussi ñu renforcer ñu ay éléments yo xamni dana mëna dana mën a sécuriser Kër Massar parce que li ñu wax ni mo am fi ci éléments fi ci Kër Massar même suñu ko bëggé mënuñu ko. li fi xew demba yeen ñëpp gis ngeen ko Kër Massar encore Kër Massar toujours Kër Massar Kër Massar kenn watul ndax insécurité ndax li ñëw ci kër mairie bi yàq ko mais bayiwul kër yi lañu ñu taal démb ca rond point ba soriwul station Shell bi imaginer len tay jii.

nekku département dëkk bi amatul infrastructure police bi doyul gendarmerie sapeur pompier amu fi dara amu fi ñu bëgg a dellu si di dund lii muy insécurité moo tax dañuy interpeller nag gouvernement bi ñu jóg wax ci waxi Kër Massar. Marie Aw di adjointe ci meeru Kër masaax bi daal di ñuy xamal ni lu ni mel dinañ ko topp ba ñi nga xamante ne ni ñoo def yile ñaawteef yoon daal di leen di teg loxo. gis ngeen ne gendarme yi lañ njëkk a xeexal am na gendarme yoo xam ne bu ñu dawul woon ñu rey leen. justice jël na loolu parce que tu es maire sous sous ça veut dire que euh, na procédure bu enclenché nous ngi laaj procédure boobu dem jusqu'au bout que les fautifs soient sanctionnés parce que lii jaaduwul. Moustapha Meng meeru Kermassar, Massar bi ñu ko tàllalee suñu micro nanguwul àddu jëmale ci situation bi jot a xew waaye xamal nañu ni bile saccage xeexu la Kër Massar la war a doon yàgg na alerté ci lu ni mel fi mu ne nii jot jël seen destin. en mai population bi nag bi ñu doxantoo ci ñenn ci ñoom ngir am seen témoignage ci li nga xamante ni moo jot a xew ci Kër Massar kenn ci ñoom nanguwu cee wax.